merci jërëjëf jërëjëf. loolu moom moo d' maa ngi nuyu Sénégal du nuyu soppe yi di nuyu le monde entier waa gis nga de tey moom nitu nit ñi moo xewle muy dogo dogo moom bu xewle nii rek lay mën a mel donc mu woo ma nag ne ma sama xew moom yàlla dafa dogal ni sama yaay sama waajur bu jigéen da laa bëgg donc pour pour pour la faire plaisir moom yow la bëgg nga tëgg ko man it yow laa bëgg nga tëgg ko donc ma ne ko loolu du dara loolu sama kër la na artistes yëpp ñëpp ñëpp ñëw def bu ñu defee nag après man ma ñëw. doogo a doog a continuer soirée bi noonu la demee quoi yeah. macha allah euh, Sidi euh, yaa ngi sa yoon. Mm-hmm. mën nga li ngay def ràññeeku nga mais Sidi gis nañu tout le temps détail ak coow chaque jour dañuy faral di wuy si. mais Sidi am na benn arme muy daan silence. dina gis nga tontu dara yaa ngi focus ci li nga xamante ni mooy sa liggéey. waaw loolu yëpp sant yàlla rek. loolu yëpp sant yàlla en tout cas maa ngi ñaan na ñëpp am jàmm suma sister. loolu yëpp sant yàlla rek parce que ku nekkul ci yoon peut-être doo dégg détail wala ngay dégg wax maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan réew mi suñu borom def ci jàmm ñu ngi jëm ci élection yi suñu borom def jàmm ci réew mi def ko ci tarixa yi def ko ci aar bi ci culture bi def ko ci lépp ci politique bi daal donc tey dañ fi ñëw pour suñu frère Dogo donc ñu ngi koy ñaanal tamit heure ménage te mu gaaw wàllu ma nag. waaw waaw ah. mais jot na nag. jot na kay jot na waay mi ngi fi mi ngi lay ah, nuyu maa ngi koy nuyu ma koy wax leneen lu ko nopp ko rek. waaw heure ménage kan. ngan dem nopp yooyu bientôt. pata eh, eh, eh, yow nag heure ménage kan. allah. yow boo demee rek man ku la takk am ku jong ma. mais frère Sidi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax tranquille na trop. jërëjëf yaa ko moom jërëjëf gis nañ nga nga xaw a gëj def ay réception yu mel nii. ngeen ko tëgg euh, boo ko tëggee rek c'est parce que am na nit ko jaral. dëgg la lu ko tey. waaw parce que Dogo dafa bokk ci animateurs yoo xam ne bi may débuté da daan jàpp nag sama carrière bu baax boobu mi ngi amoon benn affaire bu tudd Datcom fii je me rappelle très bien benn site bu tuddoon Datcom donc ma déplacé wu dem ba la ne ko ah man de grand damay doog a door ne ci banlieue bi boobu kenn xamu ko dama bëgg ñu jàppale ma mu jàpp sama loxo wàcc ci suuf pentola boole ma benn grand bu tuddoon à l'époque Zal Zal na ko mais kii mooy kan man xaw ma ko mun na ko mais da nga koy jéem a essayé far ñu essayé ma nag ma def pentola guichet fermé soirée boobu ku nekk mi ngi koy fàttaliku donc boobu ba tey ñu fasante ko lële voilà ci début bi te nag xam nga nit moom kenn du ko lekk kenn du ko naan nit njariñ mm-hmm. yii gëj naa ko joué mais bi ma woowee na ma sama yaay daf la bëgg te yaayu dogu daf maa bëgg waaw yaayu dogu daf loolu ma koy nuyu bu baax maman donc moo tax ma ne xaar ma ñëw ça va ça va alhamdulilah. ça va alhamdulilah d'après les rumeurs. d'après les polémiques. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi mentalement comment il est. tranquille tranquille ñu ngi suñu ruq di job di waajal suñu album di waajal fin d'année bi ak gis nga boobu ba tey ñu ngi ci contrat yi di joué démb ñu ngi woon King Fat tey jii ñu ngi fii bu jóge fii damay dewaat léegi five mu fa jógee five suba aussi maa ngi Radisson ak waa Diaspora Oz euh, après demain maa ngi ak waa Orange donc le 30 maa ngi jëm foofu ci concert bu rëy foofu Fass ah le 23 décembre maa ngi jëm Thiès le 24 décembre maa ngi jëm five 25 décembre Baramundi le 31 maa ngi jëm place mairie ville de Dakar le premier janvier maa ngi jëm Saly donc ñu ngi bouqué calendrier yi ñu ngi joué ñu ngi waaw waaw voilà le 29 juin aussi préparation bi boobu mooy tëj calendrier bi di wax waa diaspora bi nañ ko waajal bu baax le 29 juin bis bu mag la artiste Sénégal yu bari fii ndaanaan yu mag war a déplacé wu ñëw gunge ma artiste maliens yi guinéens yi Mauritanie Gambie donc y aura beaucoup de surprises le 29 juin incha allah Zénith de Sidi mbokk yee ko doon laaj am di jàmm yi mm-hmm. donc waa diaspora bi nañu waajal muy waa yàgg naa génn mooy mais mooy nekk suma waa saal métier bi mel noonu donc te saal yi ay nit rek koy feesal te ku ne xam na ni sénégalais moo dàq sot ci àdduna donc maa ngi leen di wax ñu ñëw sotal seen doom te xam ni culture africain culture Sénégal mooy gagné vingt neuf juin incha allah merci beaucoup maa leen di bëgg